asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi xel Ali Imran TV di ñu ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu seen émission at tadabbur émission bi nga xam ne ci la ñuy waxtaane alquranul karim téereb borom bi subhaanahu wa taala afala yatadabbaruuna alquran seen émission at tadabbur a ngi noonu di tolloog settantal ñu xoolaat téere bi waxtaane ko nuróole yi ci nekk njàngiin yi ci nekk njàngat mi ci nekk topp alquranul karim Ali Imran TV lay ame ay bis gu jot seen mbokk Mbacke Sylla ci ciy àndal ànd ak imaam Aboubacar mu indi ay njàngatam ci téere bi mbokk yi alquranul karim suñu dund la moo ñu netti la xewoon démb nett li ñu lii ñuy dund tey te moo ñuy wax la nar a xew ëllëg inna haadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam topp leen ñu ñu ànd settantal téere borom bi subhaanahu wa taala ci Ali Imran TV ca kaw ca kanam bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wassalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ma bikum min nihmatin fa min allah mbokk yi seetaan Ali Imran TV asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu amaan nañ mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci seen émission bu mag bi nga xamante ne mooy émission settantal alquran atadabbur ñuy waxtaane téere borom bi subhaanahu wa taala di ko jéem a settantal di ko jéem a waxtaane ngir mu gën ñoo jege di ndokkeel bu baax jullit yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi yépp ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ci weeru koor gi ñu nekk ba nekk ci ay bis gu mujj gi di leen ndokkeelaat bu baax itam nag ci bis bu barkeel bii nga xamante ne bis bu rëy la ci ñun di bisu samedi waaye tolloo itam nag euh, ak bis bi nga xam ne Ali Imran mi ngi ciy génnee xale yi nga xamante ne ñoo mokkal alxuraanul karim loolu nekkaat beneen euh, teraanga joo xamante ne teraangay alxuraan la duggante ak li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee ñoo ngi nuyu ñëpp te di leen siyaare amaan mbégte lool ci feggoowaat ak suñu xarit imaam Aboubacar Traoré mi nga xam ne moom la ñuy àndal ci atadabbur ñiy jokkalante aaya yi di ko jéem a settantal ndax mu gën ñoo jege du ñu daal di def lu dul rek janoo ak moom jox ko kàddoom moom itam mu nuyoonte ak yéen imaam asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. alhamdulilahi alladi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yajal lahu iwaja walsalaatu walsalaamu ala almabuusi rahmatan wa uswatan wa qudwatan lilaalamina ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di la nuyu sëñ Mbàkke Sylla di kontaan lool si nu liggéey bi di doxee. di nuyu kilifa kër gi oustaz Al Jalil oustaz Alioune Sall. di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñooy jàpp ci liggéey ji moo xam góor moo xam jigéen la ñi nekk ci biir ñi nekk biti di ziyaare ñëpp wax dëgg yàlla di la ndokkeelwaat ci weeru koor beeg ci émission beeg. yaa safiila alquran yaa safiila ahli alquran fi Sénégal ngi lay nuyu bu baax a baax macha allah itam ñu ngi lay ndokkeel di békki teewaay bi ak disponibilité bi nga xamante ne fu ñu la soxlaa ci alquran nga teew moo xam fii la moo xam émission yi ca rajo ba la moo xam jotaay yi nga xamante ne ñu ngi koy amal yëpp la euh, di bég lool nag ci waxtaane téere borom bi subhaanahu wa taala ak bànneexu alquran ak di ko yëg léeg-léeg ma ne la imaam daa mel ne alquran daa am cafka mm-hmm. maanaam am na am na cafka goo xam ne waxoon naa la fi ne xaw ma kaani la xaw ma xorom <laughs> xaw suukar ndax yooyu daa dañoo xam lu mu waaye lii daa mel ne day neex te kenn xamut lu mu cafka ak alxuraan googu imaam nan la demee cafka boobu moom ku ko mos rek moo ko xam mm-hmm. waaw du lu ñu mën a expliquer dëgg la c'est impossible parce que fa muy tollu si doomu aadama moo yéeme mm-hmm. te loolu li ko waral mooy alxuraan du waxi nit du waxu bindeef waxi ki nga xam ne moo bind nit moo bind mbindeef yëpp mm-hmm. muy borom bi subhaanahu wa taala moo tax ku koy dégg wala ki koy déglu wala ki kay jàng day yëg ne borom bi mooy wax ak moom cëram yëpp ñoo koy dégg da koy àgg foo xam ne maanaam ak cellules yi nga xam ne ñoom ñooy départu base bind doomu aadama cellules yooyu lay jëm directement mhm. moo tax alxuraan li ñuy wax chifa la dafay faj loolu la parce que moom cellules yi lay attaqué lay mhm. dem bu foofu parce que cellules yi gis nga cellule boo gis mhm. dafay garder ay information dafay am ay ay ay ay yu muy dox ci biir yaram te ki koy déglu bu demee ba àgg fa mu war a àgg ci cellules yooyu la jëm. Hmm. moo tax muy changer morphologie am di changer comportement am di changer léppam ba yenn saa day yóbbee nit ki foo xam ne si benn xaal boo xam ne mën naa jooy yenn saa yi mën na bañ a jooy mu génn ci biti waaye dangay ngay yëg ne wala moom kooku day yëg ne am na daal lu xew daal. même bu fekkee gëmul si boppam. Mhm. moo tax da ngay gis yenn saa yi même si wàllu yenn réew yi ak Occident ñiy dégloo nit ki alquran mu déglu déglu ba si yàgg jékki commencé jooy. Mhm. moom sax du xam lan la. parce que cellules yooyu ñuy base création am. te alquran yooyu lay attaqué. Mhm. alquran xool mi lay attaqué. alquran xel mi lay attaqué alquran ruux bi lay attaqué ak nas bi. moo tax la na mu koy na mu na muy euh, amee ci moom jeexital. ci dëgg dëgg dëgg mën na ci wax dara waaye définition bi wala yëg-yëg boobu exactement du ko mën a wax. Mhm. ki koy ki ko mas rek moom moo ko mën a xam. dëgg la rek moo ko mën a xam loolu mooy bànneex bi nga xam ne moo ci nekk. ba nga xamante ne léeg-léeg mhm. eh, ku ko mos tam neex ci yow. Mhm. ñu bëgg nga fexe keneen mos ko. dëgg la xam nga alxuraan masoon nañ ko fee wax ci suñ jotaayu alxuraan yi. ne yéefar yi sax bi ñu waxee ne bu kenn déglu ji alxuraan bay bañ ñu déglu ji yonent bi parce que dañoo seetloo ne ku ko déglu rek mhm. boo moytu da nga xam ne lii du waxi nit dëgg la dem na ba mu jàgg kilifa yi doon tere ñu ko déglu mhm. ñooy mujj dem ci guddi gi <laughs> euh, tafu ci euh, ci perma <laughs> euh, ca xa maanaam mooy sàkket ya wala ca ca kër ya mhm. di yëddu ak a déglu alxuraan yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon <laughs> jàng loolu moom xoromu na lool xoromu na lool mais alxuraan wax rek ñuy wax baada audu billahi min alcheytaan irrajim wa qaala alladina kafaru la tasmacuu li hada alquran walgaw fiihi laallakum taglibuun xam nga ñoo doon wax loolu mm-hmm. ñi weddi yàlla maanaam weddi alquranul karim weddi yenent bi weddi lislaam bi bu leen déglu alquran diini mm-hmm. parce que la la tax ñiy tere gaa ñi déglu ko mm-hmm. da dafa daf dañuy bañ mooy ñi gëm yeneen sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. boobaa ñoom seen doole wàññeeku mm-hmm. mais xam nañ au fond ne alxuraan bi dëgg la mm-hmm. du waxu yeneen bi waxu borom subhaanahu wa taala la mais bañ ko dégloo benn yoon ñoom yëg nañ ci cafka boo xam ne bëgg nañ saasu su ne rek ñu déggu ko moo tax ñu doon làqatu dem di déglu alxuraanu karim te bëgguñ njaboot di déglu ko waaw daa mel ni nit koo xam ne dafa ne si benn système boo xam ne beneen système bu bees ñëw wala keneen ñoo koo xam ne andi na lu gën la mu yore mm-hmm. waaye bëggul nit ñi xam la mu la kee yor moo gën la mu yor moom mm-hmm. bu boobaa moom dafay ñàkk autorité am ñàkk euh, maanaam euh, ay ay intérêt am ñàkk statut bi mu amoon léegi nag loolu tax moom mu ngi profitoo ci waa ji waaye bëggul gaa ñi xam ne waa ji moo yore mbir ma loolu loolu nag la euh, Quraysh ñi nga xam ne ñoom ñu weddi yeneen bi daan comporté biir Màkka moo tax téere bi kon doon loo xamante ne dañ ko war a settantal <laughs> ndax ñoom li taxoon buñ koy duñ ko mën a muñ Mm-hmm. du neexaayu baatu ñu koy jàng dong waaye xam wax ji ci nekk la ndax wax ji ci nekk xam ko dafa am solo eh, góorgóorlu itam ba mën koo seetantal mm-hmm. dafay yóbbu nit ki ci eh, neexaayu wax jeeg xam gi koy xam mm-hmm. gën a tee am solo ci moom moo taxoon ñu jëloon suñ saar bi ci laay dellu di suuratul alaq waxoon nga ne ma mooy suurat numéro 19 eh, ñu ngi woon ci aaya 3 gannaaw ba ñu waxee iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqal insana min alaq iqra wa rabbuka al akram tey nag ñi ngi war a wax allazi allama bil xalam eh, imaam saar wi eh, bu ñuy dem day mel ne daa ànd ak xam-xam mm-hmm. ndax iqra eh, day dellu ci wàllu njàng ak xam-xam mm-hmm. iqra bismi rabbika iqra bismi rabbika allati xalaq xalaqal insaana min alaq iqra wa rabbukal akram tey daa ñëwaat ci baatu àllam la fa dugal waaye nag loolu dafa indiwaat lu baree bari ba noppi indi alxalam loolu yan xeeti xam-xam lañ ci mën a génne macha allah suñu borom subhanahu wa taala téere bi mu ñu jox dafa riche mm. dafa riche tey boo jëloon benn gëstukat bu mag mm. ku mu mën a doon moo xam euh, su ma nee gëstukat ma jublu si ñi nga xam ne du ñu ay jullit ah. Mm-hmm. waaw parce que bu dee jullit la moom dèjà xam na ne waxu yàlla la. Mm-hmm. mais nga dem Occident wala ci réew bu la neex nga jël benn borom xam-xam bu mag koo xam ne mm-hmm. gëstukat la. scientifique bu ñu naw mong bu ñu naw. waaw nga xam ne honnêteté intellectuelle moom moom lay doxal. nga jël juróomi aay yi njëkki wàcc ci suratul alaq. nga jox ko mu liir ko. nga nee na si def méditation réflexion. su paree nga nga nga xamal ko ni ne ko lii mi ngi wàcc ci benn waajoo xam ne. Mhm. wala wenn waajoo xam ne mi ngi doon dundu quatorze siècles avant. Mhm. waa junne ak ñeenti téeméeri at ak lu teg ci ginnaaw te fa mu doon dund nga wax ko environnement beeg fa mu nekkoon ak yooyu ci diggante ay xeer ak désert. Mhm. moom moo wax wax jii nii. su ko xoolee day ne non kii mënta wax wax bu mel nii. kon moom ci boppam mooy confirmer boppam ne lii révélation la. maanaam ci yàlla lu jóge parce que xoolal nu mu nosewee. iqra ci jamono jooju nga xam ne iqra amul woon valeur daanaka waaw leneen moo amoon valeur ci àddina waa ci moom environnement bi mu nekkoon li nga bëgg a wax mooy jàng amu fa woon amu fa woon valeur si ñoom waaw mu ngoog mhm. <laughs> ëppalante alal ëppalante doom pouvoir euh, jigéen yi rafet ni mu gën a kii dajee di noos naan sàngara reyante fii yooyu daal ak effet commerce maanaam mhm. dugg réew dem jëndi marchandise indi jaay donc loolu la ñu xamoon ñoom mhm. mais ay iqra ak jàngal yooyu noon xamuñu ko léegi iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqal insaana min alaq xoolal moo bind doomu aadama min alaq jamono yooyu ay doomu adama fii la sosoog yooyu nanga yooyu xamuñu ko woon iqra wa rabbukal akram xam-xam na muy teralee doomu aadama parce que yàlla moo def ci xam-xam loo xam ne defu ko ci lenn mais xoolal mu ñëwaat allama al insana ma lam yaalam wala ki euh, nu mu te allazi allama bil moom mi nga xam ne moom moo jàngalee maanaam euh, maanaam à travers de la plume maanaam xalima Euh, gis nga alqalam li ñuy wax euh, plume. Mm-hmm. muy big. wala mu nekk loo xam ne bindukaay. defe mm-hmm. naa wolof noonu la koy koy waxee bindukaay. moom ngoog mm-hmm. wolof moom xalima rek lay wax. waaw xalima lay wax baatu xalam def ko noonu waaye mooy bindukaay rek. yàlla wàccee. saar woo xam ne daf ko tuddee. alqalam. suuratul qalam yàlla ne. nuun wal qalami wa maa yasturuun maa anta bi nixmati rabbika bi majnuun bi majnuun yàlla ne nuun nuun boobu boroom xam-xam yi bari dañuy wax ni yàlla moo xam lu mu ci dund lu mu ci jublu moom la ñuy wax al allahu aalam bi muraadihi mooy al al xuruuful an nuraaniya wala al muqattaa waaw waaye nuun boroom xam-xam dañuy wax ne alquranul karim ci lettres yi la ko borom subhaanahu wa taala composé mhm. bu fekkente ni da ngeen ko weddi ne ci yeneen bi la jóge jógewul ci borom subhaanahu wa taala mhm. lettres yi composé alquran lenn na ngi ci nun ci la bokk mhm. alif laam mim ci la bokk alif laam ra ha mim kaaf ha yaa ayn sod yooyu yëpp ci la bokk kon yéen itam jël nañ lu mel ni xuruuf yi ngeen indi lu mel ni alquran waaw waaye gannaaw loolu suñ borom ne wal qalami maa ngi giñ allahu ci ci ci ci ci xalima mhm. wamaa ak mboolem loo xam ne yasturuun moom lay rëdd waaw te waxul wamaa yaktubuun wamaa yasturuun waaw te set sitre dafa am aar mhm. xoolal bindum alquran calligraphie bu extraordinaire bi wamaa yasturuun moo tax borom bi waxul bind dong waxul bind dong euh, boo demee ci civilisation chinois yi mhm. les chinois euh, gis nga seen bind nu mu bind yéeme la bind seen bind dafa am damay damay ko a jànge wala nan a xàmmee man avant may jàng chinois dama ne woon lii nit mënu ko comprendre mm-hmm. mais bi ma duggee euh, département chinois bi may jàng chinois après si laay doo comprendre bind naka lañ koy bindee dafa am yoon dafa am aar dafa am même booy bind ñoom seen bind nekkul da ngay ñëw rek bind mm-hmm. caractère yenn caractère soo koy bind loxo bi dafa am noo koy yëkkatee dafa am nooy nooyee mm-hmm. dafa mel ni genre aar mbir bu yéeme sax xam-xam philosophie ak benn genre méditation boo xam day ànd ak mbind bi ci boppam parce que loolu dafay feeñ ci bind bi wamaa yasturuun wamaa yasturuun mhm. wal xalami maa yasturuun kon suñu borom ne maa ngi génn ci xalim xalima ak lépp lu xalima gi bind lépp lu mu bind mhm. te lépp lu mu bind lan la xam-xam la maarifa la xikma la maanaam science la mhm. xam euh, sagesse la euh, nu mu tuddee sax maarifa la connaissance la euh, xikma la yooyu yëpp xalima di koy génnee mm-hmm. nga xam ne doomu aadama maanaam xel mi ak loxo bi maanaa cër yi ak contact bi muy am ak li muy bind maanaam dafay indi ñaar yoo xam ne maanaam xalima bi ak ci li muy bind ñaari yooyu ay jamaadaat lañ yoo xam ne dafay génne loo xam ne doomu aadama fi koy jëriñoo ñaari jamaadaat mm-hmm. jamaat moom moom objet xam nga mm-hmm. bit bic bi dundul. Euh, encre bi tamit dundul. fi muy bindee tam moo xam alluwa la moo xam. kayit la lu mën a doon loolu tam dundul waaye ñaari yooyu dañuy bo bo bokk ba pare am lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu joxante. mu am lu mu génne loo xam ne nit kiy dund mu siy jëriñu. day dundal kiy dund. day dundal kiy dund mbir mu yéeme sax. suñ borom subhaanahu wa taala mu ne alladi allama bil qalam. qalam boobu. dafa bokk ci li si si ci euh, mbir yi extraordinaire yi si nekk mooy doomu aadama bu xasee ba jël bi di bind la muy bind noonu dafay dugg ci xel mi mm-hmm. xel bi daf koy enregistré waale gis nga leçon bi euh, élève bi bind wala étudiant bi wala nit ki bind mm-hmm. bokkut ak ba mu bindut bi nga xam dañ jël ay fascicule rek moo tax yooyu euh, système éducation bu njëkk boobu waruñu ko bàyyi même suñ ko tuxalee daan gën a mokkale si na daan gën a mokkale ngay jàng ci nga koy gën a comprendre parce que da nga koo bind ci mokkal alxuraan mhm. comme ñun tari nañ alxuraan mhm. am na lu ma ci bind binduma lépp dëgg la mais tey boo indi woon ku mokkal alxuraan ba pare bind ko ak loxom mhm. bokkut ak ki nga xam ne da koo mokkal te bind ko dëgg la bind boobu muy bind alxuraan bi noonu day tax dootu ko fàtte mukk te jii ni boo jàngoon benn uh, aaya wala nga jàng suratul alaq bi nga jàng ko ba tari ko nga jël sa kii alluwa wala nga jël sa benn kaye sa benn fascicule nga toog bind ko ñetti yoon mm-hmm. dootoo ko fàtte waaw parce que bind boobu contact boobu loxo di am mm-hmm. ak xalima bi ak fa nga ko bindee noonu xel mi daf koy enregistré mm-hmm. moo tax yàlla suñu borom suñu borom suñu borom subhaanahu taala mu ne alladi allama bil qalam macha allah am na solo eh, ci wàllu njàng mi waaye ci wàllu xéewal yi mu defal doomu aadama ndax eh, saar yi boo koy xool juróomi aaya yu njëkk yi borom bi subhaanahu wa taala li mu ci joxoñ ci xam-xam kenn xamul nu mu toll te li ci gën a yéeme mooy mooy mooy wax ji njëkk a wàcc mhm. maanaam li ñuy wax nii mhm. mooy leçon bu njëkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam li njëkk a wàcc ci alxuraan mooy li nga xamante ne nit ki mën na cee jeexalu dundam te du ko jeexal mhm. te borom bi subhaanahu wa taala booba day defar terrain bi daa mel ne waxagut waaye da ngay xool yi jumtukaay yim jël ak baat yim jëfandikoo ku nar a wax dam koy soxla waaw ku nar a jàngale itam da nga koy soxla ku nar a defal àdduna itam da nga koy soxla mu mel ne yooyu la joxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dëgg la te penc mi yonent bi doon dund loolu xewu fa woon mhm. ndax màkka moom lafa amoon ci jamono jooju du am njàng mhm. lañ daan nawee góor ya fa nekk ci njàmbaarit mhm. du woon njàng ak xam-xam foofa la fa nekkoon mooy commerce eh, moo fa nekkoon ak xëy na am doole bari doom loola mooy li nga xam ne moom lañ daan nawante ci seen biir euh, waaye ci saare bi mu waxee iqra wa rabbukal akram mm-hmm. lam ko ca tegal mooy allazi allama mm-hmm. bil xalam mm, parce que sa borom mi nga xam ne mooy al akram moom la mm-hmm. koy présenté waaye mu ne allazi sa borom moom mooy ka nga xam ne waxut mooy euh, ku màgg ki waxut mooy ku rëy ki waxut mooy ku wërsëge ki waxut mooy ki la nar a defub yonent waxut mooy ki la wax nga wax ak waa màkka waxut mooy mais dafa delloowaat présentation ci xam-xam. ci xam euh, maanaam mu wane ne. Mhm. Euh, li mu ko bëgg a def mooy doonal mhm. nit koo xamante ne mhm. nii euh, amal amal jumtukaayu xam. defal ay recherche. doonal ab gëstukat. doonal nit koo xamante ne ku ràññee nga. doora doon koo xamante ne nag da ngay mën a defar penc mi. moo tax bind am solo lool. am solo lool li ñuy nett li tey ak man koo waxtaanee mbind a tax ñu jot ci. suñu histoire réew li ci réer ba mënuñ koo xam ñàkk koo bind tax. dëgg la ndax luñ bindut mokkal ko rek kii da koy jox kii kii jox ko kii mën naa xëy sànko mhm. waaye bind li koy def ñaar la wala ñett nga wax. Mhm. muy bindukaay bi. Mhm. muy daa ji muy bindee te mhm. mooy tolloog encre mhm. muy kayit bi muy jëfandikoo mhm. wala moo xam da koy bind fu mu mën di doon wala sax da koy tàppe ci ordinateur am piire ko waaye mbind moomu yi koy def moom yooyu yëpp ay jamaa daat la waaye kii bind li muy génnee ci diggu yuuram nga lay génne nekk xam-xam te day def jeexaat day te day defaat jeexital ci moom muy allazi allama bil qalam eh, nga xamante ne allazi allama rek doyoon na waaye allama ci lan mu ne allama bil xalam waaye fii nag moom eh, eh, wax nga léegi beneen mm-hmm. baat mm-hmm. muy nuun wal xalam mm-hmm. gis nga sóoratul xalam ak sóoratul alaq tey boo doon def am njàngat ci ni ñu tudde saar dagay jàpp ne dañoo waroon jël saar wuñ tuddee alxalam tudde ko euh, maanaam iqra moo waroon tudd al alxalam bee tudd al alaq <laughs> ndax ndax ndax ñaari saare bi ñu tàmbulee développé day junj lu mel noonu ndax bee nuun wal xalam wa maa yasturuun waaye daa mel ne da ko fa ñukk ne yorent bi li ma la defal euh, ci ay xéewal fàtte woo ko baadoo la woo mm-hmm. maa anta bi nihmati rabbika bi majnun doonoo koo xam ne da ngay suul jëf xéewal yi la yàlla defal mm-hmm. parce que booba dañ ko wax da ngaa dof mm-hmm. yàlla bëgg leen a woon ne ki ngeen ne dof dofut mu ne ko xéewal yi ma la defal sore naa ngay nekk ab tey nag mu ñëwaat indiwaat alxalam nga xam ne kon jàng ak bind ak gëstu dafa doon lu ama am solo ci dundu bi imam macha allah euh, nu mu tëddee sax euh, maa anta bi nihmati rabbika bi majnun xam nga wax bi jàll. Mm-hmm. nuun wal qalami wa maa yasturuun. Mm-hmm. loolu dof du ko wax. du waxi dof. waaw <laughs> tellement que wax bi profond na am profondeur boo xam ne bu extraordinaire. Mm-hmm. boo xam ne ku ko tadabbur rek di nga xam ne lii. wa maa huwa bi qawli shaa'ir. tey ma anta ma anta bi nihmati rabbika bi majnun borom bi daa bëgg a wane ne dofut. waaye mu indi fa baatu neex waaw dof du suul jëf maanaam daal euh, ku doful ab dof day suul jëf waaw <laughs> ndeke dof dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp ne dañoo dañoo karawaatu ñoom waaw si costume dañoo yori gëléem dañoo yori doom waaye xéewal gi leen mm-hmm. yàlla defal mm-hmm. dañoo suul jëf yàlla ne leen ndekete yéen yéenay dof yi ñooy dof <laughs> yi yenente bi doful doful mi ngi noonu donc euh, gis nga alxalam mm-hmm. muy euh, xalima boobu jeexite li muy def si doomu aadama dafa dafa dafa dafa dafa bari moo tax euh, comme ni ma ko waxee sànq waruñoo toog di bàyyi li nga xam ne moom mooy wàllu mbind mbind moom toujours war nañ ko woon ak gis nga alxuraan ba léegi loxo moo koy bind mhm. alxuraan yi ngi kaamil ñuy gis ni ba tey loxo moo koy bind waaw après machine bi moo koy ciiwaat ñu kii ko def ko ay exemplaires yi bari mhm. mais ba léegi alxuraan mhm. loxo moom moo koy bind parce que dafa am benn euh, jeexital bu am solo bu nekk ci ci loolu euh, addina nu mu yàgg-yàgg nu mu sori sori aussi doomu aadama warut bàyyi bind. Mhm. imma bind bi xëy na day day day euh, changer nekk ci beneen façon. Mhm. mooy ñu suñuy clavier suñu ordinateur di bind. Mhm. te ba tey bind boobu ngay bindoon am benn texte boobu nga koy bind ak sa ba tey même même chose la rek. waaye nag ba léegi du yam. du yam ak kiy jël xalima toog di bind. Euh, beneen bi moom mooy li gën a yéeme mooy xool borom bi subhaanahu wa bi muy ne alladi allama bil qalam. allama bil qalam kon jamono jooju. ak science fi mu toll ak xam-xam fi mu toll borom bi subhaanahu wa taala jox li yeneen salaa sallam te ñun ñëpp xam nañ ne àddina ni muy gën a yàgg ni muy gën yàgg rek àllama bil xalam boobu dafay gën a am euh, réalité boo xam ne ñun ñëpp dañ ci d'accord ne kon ndeke éducation wala xam-xam dañ ci war a gën a exsanté wu mm-hmm. kon moo tax alquran comme ni ñu ko waxee rek mooy moom euh, la mu indi ci ay njàngale la mu indi ci ay ay ay ay ay xam-xam noo ko mën a mën a jàngatee rek da ngay xam ne jamono mënu koo raw. Mm. waaye toujours mooy ja daw jamono man ma mooy mooy raw jamono. jamono daal mooy daw ngir dab alquranul karim mm-hmm. waaye alquran du fekk jamono ba pare ñi naan noonu léegi dañu war a jël alquran méngale ko ak jamono mm-hmm. waaye contraire bi moom mooy am macha allah nga xam ne su ma la déggee kon diine ji diine xam-xam la mm-hmm. ndax diine joo xam ne euh, moo jita yi nga xamante ne moom la yonent yi doon indi kenn ku nekk da am booyor waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam mujisaam bi gën a rëy mooy alquranul karim kon euh, doonul jullit ba pare desal ginnaaw xam-xam mm-hmm. ñàkk xam li nga doon mënu koo weesu ab jullit mooy ki war a gën a am xam-xam ci àdduna mm-hmm. mooy ki war a gën a informé wu ci àdduna ndax yi nga xam ne moo daje ci moom ci ay xam-xam mm-hmm. dafa bari lool lool lool imaam xoola sax waaw euh, kii suñu borom bi mu nee euh, wal qalami wa maa yasturuun alladi allama bil qalam tey dem nga États-Unis yàggul. Mm-hmm. Euh, boo dem yenn ànduraay su réew mi yëpp foo dem mais surtout réew yi gën a développé doo laaj kenn foo bëgg a dem rek dañ lay bindal tableau yi wala xalam xalimaa fa jaar waaw xalimaa te xool bi ko yenent bi di wax mm-hmm. maanaam bi ko yàlla di wax di ko mm-hmm. jox yenent bi waa ak tey tey la gën a réalisé wu boo demee rek même booy laajte fenn dañu lay joxoñal rek benn tablo ne la xoolal. dëgg la waaw même booy xool tableau yi sax jarati ngay laajte laajte moom daa mel ne ci ñun la des. ci ñun la des. Uh-huh. booy dem fenn tamit sa kii sa kii. localisation waaw sa localisation ngay kii rek mu indiqué la. Uh-huh. mi ngi noonu. donc moo tax allama bil qalami bi ak. wal xale ma yasturun boobu tey la gën a nekk réalité. macha allah imaam Aboubacar am na solo xam naa nga jàngal ñu ñeenti aaya yooyu ñu amagun bu ko defee ñu daal di tàggatoo.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 الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله صدق الله العظيم boobu mooy suñu bind bii di ñëw allama al insaana maa lam yaalam foofu lu xóota xóota nga fa buñ yàlla mayee ñu dudd ba ay bis gi di ñëw danañ ko yaatal teggee suñ baaraam fi ñu ko teg incha allah imaam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñuy jàll fi ñu jëm di kontaan ci yow yal na yàlla fay la defal la tawfiq jërëjëf ndokkeel la bi ci waxtaan wi bi ci ñi nga xam ne ñoo ñu doon topp jaajëfal Abdoulaye Ba mi nga xam ne moo ñu doon cadré jaajëfal Pape Doudou ak équipe technique bu Ali Imran TV yëpp jaajëfal équipe bu euh, Atadabour ndax Atadabour ci biir seen bi am na ci équipe bu boppam boo xam ne alxuraanul karim doo nga leen ñor saa yuñ tàmbalee ñu ànd ak ñun di ko xaar boole ci seen i commentaire boole ci di dajeeg ñun di ko rafetlu ku lim juum ñoo ngi leen di duy yéen ñëpp jël nuyoo bi teg ko ci loxol suñu xarit Cheikh Fadel Ka euh, moom mi nga xamante ne ci Tadabour la bokk te di ko seetantal xam sax bis dana ñëw mu ñëw toog ci a atadabour ak imam Aboubacar ñu waxtaan ak mboolem ñi nga xam ne ñooy topp tadabour te nekk jotaayu te nekk ay donga daara te am ay xalaat ci tamit ñi waxtaane ubbil nañ leen seen ñu bunt man ngeen ñëw ànd ceeg ñun incha allahu taala mbokk yi cant ngërëm ñeel na leen ba ay bis gii di ñëw incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel Ali Imran TV di ñu topp ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu seen émission at tadabour émission bi nga xam ne ci la ñuy waxtaane alquranul karim téereb borom bi subhaanahu wa taala afala yatadabbaruuna alquran seen émission a tadabbur a ngi noonu di tolloog settantal ñu xoolaat téere waxtaane ko nuróole ci nekk njàngiin yi ci nekk njàngat mi ci nekk topp alquranul karim Ali Imran TV lay amee ay bis gu jot seen mbokk Mbacké si ngeen ciy àndal ànd ak imaam Aboubacar Traoré mu indi ay njàngatam ci téere bi mbokk yi alquranul karim suñu dund la moo ñu netti la xewoon démb nett li ñu lii ñuy dund te moo ñuy wax la nar a xew ëllëg inna haadha alquran yahdi lillati hiya aqwam topp leen ñu ñu ànd settantal téere borom bi subhanahu wa taala ci Ali Imran TV ca kaw ca